d' accord ok accord d' accord loolu comme waxoon naa la loolu du ma si du ma si dellu si du ma si dellu si waat léegi monsieur le ministre mbiru Moussa Diop laa bëgg ñu ñëw ci euh, tey dama dégg léegi nii benn lettre boo xam ne bind na ko mandataire am euh, fësal ko mettre mussa Diop mu wax ni ci lettre bi euh, mu ngi laa mu ngi woo bâtonnier bu Paris pour mu àddu ci lii jafe-jafe yi nga xam ne justice bu Sénégal teg nañ ko ko. Euh, justice bu Sénégal liñ ko teg jaaduwul yoon wax na wax na mais man li ma si dégg ci lettre bi yëpp presque liir naa ko mooy li ma ci dégg yëpp mooy ba amul benn yoon bu mu regretté kàddu yi nga xam ni wax na ko te bu fekkee regretté wu ko mooy mi ngi taxaw ci li nga xam ni wax na ko mu jëm ci ay tuuma yoo xam ni <coughs> teg na ko ci yow tuuma yooyu nga xam ni teg na ko ci yow dégg naa li nga si wax ba sax ni dootoo ci sawar ci expliquer ci mais man jàpp naa ni tuuma mënta gën a mag loolu. ah si tuuma nañ lu nit ñi lool lool. waaw non ci non tuuma. waaw ah, bon. ah waaw tuuma moom nee na moom nee na moom ci boppam nee na joxe nañu benn permis de recherche buñ jox Mimran ne man maa ko bind leetar boobu man la ma ci wax rek mooy tuuma la moo tax ma porter plainte pour diffamation. Mhm. parce d'abord xam naa ne binduma lettre bi ensuite xam naa ne joxewuma ci permis bi mieux ma def communique wax ne man benn permis laa joxe wax date bi ma ko joxe mhm. wax entreprise bi ñu ko jox mhm. fa laa yem li ci des maintenant mbir maa ngi biir yoon bu amul lu muy regretté bër bu demee ci yoon moo ne ko moo ne la muy amee mhm. dootuma ci waxaat pare naa ci bu rëccu bu rëccuwul man pare naa ci d'accord nga wax ni xamloo Mimran waaw mosuloo ko gis. xanaa ci télé. ok mais Diagne Ndiaye xam nga ko. bu baax. ok xamante ngeen bu baax. waaw Diagne xam te xam nga lan la nekk ci Mimran itam. waaw. ok mosoo seq dara ak moom ci lu jëm ci wàll yi nga xam ni maître Moussa Diop wax na ko itam. ci jamono. Mhm. ci mbiru leneen. ah déet du ma wax lu mu seq ak Diagne ci leneen mais ci jamono. loolu mën naa la ko wax. waaye li ma seq ak Diagne moom sa yoon nekku ci nekk. d'accord d'accord mais mën nga bañ a xam Mimran mais xam mën nga xam Diagne Ndiaye. Ah, bien sûr dégg nga xam naa ko. <laughs> Ah, d'accord ci ci jamaa boobu muy wax nga nekkoon jëwriñ ñu denk la lu aju ci wàllu miin ak yooyu lan nga ci xam ak lan moo ci am ci wàllu jamaa non déggoo ma ne la jamaa li ma ci xam man benn permis de recherche laa ci jox deux mille deux mille euh, 2016 ou 2017 parce que permis de Wasangara yor naa d'ailleurs adresse beeg yëpp ak ak surface bi te ba ma fay jógee ba ba ma fay jógee jamaa génn fa ndax man 2017 laa génn ministère de l'intérieur mhm. laa ministère du mine de ministère de l'intérieur. ok waaw alors léegi Aly Ngouille avant maître Moussa Diop di def point de presse bi da nga jéem a jokkoo ak moom téléphone. waaw. avant muy de point de presse bi muy wax ni waaw mais du moom rek. <clears throat> boo déedéet pas avant muy jéem a point de presse bi. c'est-à-dire que man dans démarche. d' je suis j'ai beaucoup de responsables yoo xam ne am na si tey ñu déposé yoo xam ne yi contacté naa leen. parce que c'est dans le discussion mooy discussion yi nga wax léegi nii ak certains qui n'étaient pas candidats ou d'autres qui étaient candidats tout simplement mais malheureusement on ne s'est pas parlé. nga bind ko message. waay bind ko message. waaw nga wax ko ci. mën naa la woon message bu paree parce que loolu par contre mën naa a ko. dégg ma la ko wax dégg ma ne la loolu loolu loolu warul compliqué. j'ai pas besoin de le dire à ce stade là dégg ma ne la bin man mën naa la jox message boo paree boo liggéey boo amatee beneen émission nga nettali message. non non non monsieur le ministre non xam nga aussi message bi da nga ko ko bind te loolu ci veillu avant muy def point de presse. non non non c'est au moins deux semaines avant kañ la def point de presse le message je l'ai envoyé le 24 novembre. ok waaw. d'accord te message bi même boo fekkente ni mënoo ma wax ko lii mën nga ma wax ci contenu bi xanaa au moins. pour non pour plus de transparence pour plus de transparence non xam nga xam nga Pape il faut que comprendre ta à dire quand on va. Euh, xam nga koo xam ni dem ngeen ba seq loolu seq nga koy woo téléphone ngeen di envoyé message. Ah, ah, mais mu génn génn bu mel noonu mais man il faut ma xam ndax message bi dafa jëmoon ci li mu war a wax la wala ci lan la. léegi li ma lay wax c'est très man du ma wax message mais je te permettrai su ma la joxee message après boo neexee nga wax lu ci ne. du doon dara du doon diffamation doon leen mën naa la ko permettre. Ah, monsieur le ministre loolu loolu loolu c'est important mun naa am xëy na dinañ ci dikkaat mais du loolu rek ah parce que bien avant affaire u maître Moussa Diop am na benn article bu le quotidien publié wax ni euh, Aly Ngouille Ndiaye waa Pologne dañ koy dañ ko war a déglu ci ay ay ay ay xaalis yu leerul mbir moomu. à de témoin dañ ma ko waxee fam ca période bañ ma ko waxee laa bind kilifa gi ne ko pare naa pour loolu. lettre kilifa gan si président la république. moom lu ko ci boole ci loolu ba nga bind ko. ah parce que c'est normal man je suis ministre nag. ci moom laa ah, dépendre directement ok ok te lu ma ci mënta def it moom moo koy autorisé. d'accord waaw. lettre lañ ma bind lettre laa tontu. mais loolu xeetu pot de vin blanchiment yooyu. non non pot de vin déedéet man lañ wax dañ ma bëgg a entendre à titre de témoin tout simplement tontu naa ci ok waaw d'accord bi mu génnee lan nga ci lan nga te mu coïncider ak sa sa sa taxawaay ci élection yi ci làng gi ak loolu yëpp. bi mu génnee bi loolu génnee. waa la nga ci xalaat rek laa ci xalaat. non man la man xalaatuma ci dara. Ah, kon xalaatuma ci dara lu may di wax ne bindoon naa tontu na monsieur le ministre yaa ngi bëgg a saboté de. <laughs> saboté man xam nga man concerné wu ma yow la concerné. Eh, yow lañ ko yow la yow la personnellement. soo ma nee li nga ci xalaat loolu laa ci xalaat te man xalaatuma ci dara. naa ci xam sa xalaat vraiment. bëgg naa ko ci xam non dara xalaatuma ko ci. waaw ma information la bi mu génnee. Mhm. man xam nga sax li ma tontu génnewu ma ko. waaw waaw mais dama ne man ba mbir mu amee tontu naa kilifa gi. ok wax ko ci samay disposition te boobu j'étais ministre. c'est-à-dire ba am quoi ministre nga woon. ba muy bind ministre la. Mm-hmm. d'accord d'accord alors monsieur le ministre ci ci ci wàll boobu euh, nga xam ni du loolu rek de wax dëgg yàlla parce que mm, am na yeneen mbir yoo xam ni tam xaalis da ci doon laale ñu tudd la ci. mbiru non c'est important. <coughs> Pape bi c'est important. waaw waaye xam nga yi ngay wax yépp nii daanaka benn bu ci nekk. au moment opportun waxoon nañ ci donc jàpp naa ne tey jii li ma gën a intéressé jàpp na gën ñu intéressé mooy li Sénégal di xaar ci li ma bëgg. déet. Sénégal damaa jàpp ne dañ la joxoon ministre. ministère jox la portefeuille. loolu lépp xaalis nga géré ko donc bala man lañ ma jox yëpp mais loolu c'est important. Sénégal dañ la joxoon ministère xam nga loolu lépp nga wax nii. da ngaa déggagul. waaw boobu ba tey. benn rapport li ma la xam nga ni am na déglu ma. mais dama bëgg wax c'est-à-dire que du ñu mën a euh, def si ay rumeur dama ne la man li ñuy wax nii amul du waxuñu man géré fee la ak Pologne bi ma la xam nga ne ay fee la moo tax lan moo ci rumeur fee ya ca am maître Moussa ma ci ba léegi wax ma la nekk dama ne la fee am bu ne mhm. wax naa la ma ci tontu mhm. cest à tey jii nii xam nga nguur dafa am nu muy doxee mhm. ñun dañu dénk xam nga koo xamee ne kii ba ban lay dénk parce que bu fekkee ne affaire àll la benn bu ci nekk man lu ma dénk lu ne dama ciy bind tey état am na ay structures yoo xam ne tey bu contrôle amee ñoo war a contrôler tout simplement donc xam nga tey jii nii c'était pertinent boo ne ma ñi la contrôler nee nangam structures yu état am contrôler nee nangam waaye yi ci des dañ laa tuumaal dañ laa def nangam loolu vraiment gëm naa ne du loolu moo ñu fi indi mm-hmm. d' accord waaw ah. d' accord mais monsieur le ministre ñu d' accord ci. non loolu mënu ma ci d' accord. ah si de si mënu ma ci loolu xam pourquoi mënu ma ci d' accord. parce que tey bu fekkente ni yow danga nga nekkoon ministre de la république yore alalu réew mi li ñuy wax nii mu laale ci yooyu mais c' important boo taxawee di laaj réew mi. mais ma tontu ne lii nañ ci wax. mais demal ne tontu nañ ci. moo tax ma ne la buñ ci tontoo. duñ ci mën a continuer di ci tontu parce que li ngay wax nii maanaam bu fekkee li ma la tontu li ma la wax dalaa doyul am nga ci droit. am nga ci droit li ma la wax mën na laa bañ a doy mais li ma gëm a gëm doy mooy xamoo li ca biir man loolu xam naa ko. la ca biir dañ ko warut a xam. moom déedéet dama ne xamoo ci biir wax ma waroo ko xam. mais dama ne la li ci biir xamuloo ko. waaw di à mën na laa bañ doy mais li ma la mën a wax nee naa la man du ma weesu foofu. tout simplement parce que benn bi bu fekkente ne état la concerné état xam na fu muy dem pour creuser bu fekkente ne benn bi justice la nee naa la mi ngi ciy yokk justice dootuma ci continuer. Mm-hmm. tout simplement. mënuma wax lu mooy loolu. xam nga tey ji nii bu ne la bind leen lettre ne la maa ko signé lettre boobu je si suis pas aussi nul pour signer une pareille lettre yow bu la neexee nga gëm ko soo gëmee ne man nul la bor ko signé mënu la tere. mais man dem naa ne je ne suis pas nul pour faire cette parallèle. benn mais man non damay jàpp ni aussi ki ko wax mënta nul moom itam. waaw man mënuma jàpp jàpp koo xam ni. Euh, avocat à la cour la comme ni mu ko waxee. baro bu Paris bari bu baro bu Dakar. ba pare mën a mën a mën a mën a non mën naa jàpp ni mënoo nul yow. mais man jàpp naa ni moom itam ah, mënta nul. bay bay bay bay bay juum ci loolu. waaw dama ne la xam nga déjà. waaw man li ma wax c'est très simple. Mhm. moom boo jëlee son cas il a lu une lettre où c'est daté du 1er décembre 2016 ministère de l'énergie et des mines. waaw ça n'existait pas tout simplement. c'est-à-dire que le 1er décembre 2016 amutoon ministère bu tudd noonu. waaw xam nga loolu. c'est vrai budul lapsus loolu loolu dëgg la loolu la lapsus xam nga lapsus. non non budul lapsus laa kii dafa liir. dafa liir lettre bind ko moom moo ko liir lettre par lettre. donc voilà nul na ou nul je sais pas moi en tout cas li ma mën a wax rek mooy man niilu ma pour bindu lool. d'accord mais pourquoi Aly Ngouille pourquoi moom. loolu nag xamoo ko boo ko gisee nga laaj ko ko. pourquoi Aly gisee nga laaj ko. non mais du yore yaa fi nekk pourquoi. ma ma géré woon mine période boobu. waaw mais pourquoi par exemple Aly Ngouille nga xam ni par exemple candidat la tey ci élection présidentielle. Ah, waaw mais maanaam yaa ngi répondre pourquoi lu tax maanaam yaa ngi commencé répondre pourquoi Aly Ngouille candidat en 2016 maintenant euh, heure bi waaw ah, man de man man ni nga defee soo soo creuser tuuti. da am <coughs> élément de réponse non xam nga nan laay creuser te nga nekk fi te nga ni te nga ni John taxaw jàkkaarloo man mais tamit man dama ne la man. waaw su nit génnee tuutal tu tuumal ma. mais man xaw ma lu tax bu wax ko léegi fi mu doon nii man li man rek mooy tuumaal na ma na seetal sama der léegi seetalu sama der yóbbu naa ko ci yoon. bu demee ci yoon dina seetal sama dem yàlla na ñu fi dund gi bàyyi. d'accord tout simplement bu ñu fi dund gi bàyyi dina leeral. d'accord mais te actuellement nii porté nga ko plant wala avant ñu koy ñu koy <clears throat> avant procureur di di di saisir ci dos ci ci affaire bi ci nga ko porté plainte wala après nga def sa plainte. bon man daal xaw ma kañ la procureur saisir man xam naa kañ la plainte loolu xam naa te convoqué wuñ la aussi. non boo plainte yaay dem confirmer def sa déposition loolu mooy principe bi c'est vrai que la presse a titré que dañu maa convoqué mais man maa dem def déposition et c'est normal parce que bi may plainte jour boobu sax nekku moon Dakar donc daa wax sama avocat na plainte donc il fallait venir le lendemain fekk ma ma ñëw confirmer par mais aussi dama bëgg a préciser moom li tax ñu téegu du plainte bi de. ah bon ah bien sûr fii diffamation gisoo ndax diffamation am na yeneen chef d'accusation yoo xam ne boo dee xool xam li tax ñu téye ko fa. te yooyu jàpp nga nii lu lu jar ñu téye ko la. ah ah d'habitude ku ko def ñu téye la. ba ci élection présidentielle candidat à la présidentielle d'accord xam nga xam nga déjà offense au chef de l'État ak yéen yëpp yàgg nañ fi téye nit pour lool. kon du du son premier cas mais diffamation wax dëgg yàlla gisaguma guñ fi téye pour lool. d'accord mais mën nañ ci mën nañ ci bloquer candidat. à la présidentielle. bu fekkente ni non bu bu bu fekkente ni <clears throat> mooy li ñuy wax tey ci diggante Ousmane Sonko ak ma Mbaye Niang. non c'est différent peut-être dans son cas ce sera pas le cas parce que fii boobu duñ ko àtte. loolu moom leer na ma. fii ak élection yi duñ ko àtte moom. non fii ak le 20 non cest dire damay wax xam nga fii ak ñu dël kii bi duñ ko duñ ko duñ ko àtte donc loolu du ko fi du lu ko fay téye. d'accord alors monsieur le ñu jëm ci ay élections yoon yi am nga ci programme. programme boobu euh, da nga ko làqoon durant li ngay nekk yëpp ci gouvernement bi wala naka la demee woon. <laughs> déedéet làquma ko woon parce que durant ma nekk ci ma nekk ci gouvernement bi à chaque fois que occasion bi am euh, wax nañu suñu position ci li nga xam ne lii moom la réew mi doxee ministère bu ñu ci jox sa à dire que euh, faut pas oublier aussi que man ministre la ministre du moom mooy définir le programme. <laughs> c'est le programme c'est le chef de l'État. moom moo définir son programme ñun daf ñu tànn pour ñu accompagner ko ministère du niveau boo mën a ne de simple agent jusqu'à ministre pour appliquer le programme mmh. c'est vrai am nga ci peut-être fois des marges de manœuvre mais pas tout le programme qu'on applique actuellement c'est le programme du président Macky sax moom le gouvernement bi appliqué ba le 2 avril mhm. waaw le avril jeexee bu leen euh, falul keneen dañu def beneen programme monsieur le ministre ci fukki at ak ñaar yi daanaka fukki at yi def nga ko ci gouvernement bi. juróom-ñeent ak genn wàll. def ko fukk rek mënoo fexe ba du <coughs> juróom-ñeent ak genn moom mooy fukki at daanaka léegi loolu naka ngay lan ban ban ban disko ban ban programme nga mën lan nga mën a wax askanu Sénégal ci rupture lan nga leen mën a tegal. waaw li ma li may wax askanu Sénégal ci rupture mooy def programme boo xam ne bii jàpp naa ne moo gën a ëpp njëriñ. ci dina yomb ñu dégg par exemple ci gouvernement boo xam ne yow bi ñu ci génnee yàggul. non gannaaw defaloon nañ ko président Ablaye Wade bi mu génnee ci Abdou Diouf defal ko président Macky Sall bi mu génnee ci Ablaye Wade danañ ma ko defal bi ma génnee ci moom. ok ba tey bokkul de. ah yaa ko bañ a wutale waaye amul différence. mais non bokkul de <laughs> bokkul de. non benn la rek. cest dire que xam nga bu ñu lay fal bu ñuy fal président da nga koy fal ci lan la fi bëgg a def ci juróomi at yi ñëw wala ci fukki at yi waaye du ci lan la doon fonctionner ci nangam mën nga ko jël nag comme élément de référence. non non dafa fekk ñu xam Ablaye Wade mu yor parti bu rëy fekk ñu xam Macky Sall moom parti bu mag. tamit da ngay def lu tamit da wax wax ju logique 2012 ma Macky ban parti dafa amoon bu mag xanaa man ngay wax man man àndoon ak Macky 2012 laa la wax de. yi tamit ñoom ñëpp ñoom ñëpp reconnaître nañ que ne Macky daanaka parti bi mu jël pouvoir nekkul parti bu mag kon nañ wax leneen Abdoulaye Wade d'accord na mais je veux dire c'était juste pour comparaison donc bu dee loolu kay encore sax day gën a simple ça veut dire que bu jëlee sa logique kon man aw ma sa parti. waaw ah. donc. y' a war a gën a compliqué. c' est pas lié waxuma day simple de demal ne la président Macky Sall génn na après avoir été avec président Abdoulaye Wade pendant neuf ans génn tegal nit ñi programme ñu am yaakaar ci moom jël ko. Mhm. président Abdoulaye Wade même chose dugg na génn dugg na génn bi mu Sénégalais ayoo ci moom dañ ko jël. moi aussi je suis dans cette même logique. waaw ah, d'accord te yàlla naa def exactement li président Macky Sall def. président dafa fekk mu mel mu am ay Aly Ngouille Ndiaye ci wetam. Eh, tey man waaw waaw. dafa fekk mu am ay Aly Ngouille Ndiaye. man ni dana man ni dana am ay yeneen Aly Ngouille Ndiaye sama am naa ko déjà mhm. waaw. am naa ko déjà parce que c'est normal d'ailleurs waaw mais li ngay jàpp rek mooy la tax ñu lay fal mooy lan nga bëgg lan nga bëgg teg ci loxo réew mi lan mooy sa yéene. ma teg sama yéene ci loxo réew mi wax li muy xam ne mooy am na njëriñ pour corriger problème yi nga xam ne moo am parce que loolu mooy li ëpp njëriñ. d'accord monsieur le ministre. lan mooy sa yéene ci réew mi. voilà là we talking. ci en général après ñu ñëw ci en particulier benn par benn. non le programme que j'ai xam nga damay moi je pars d'abord d'une situation qui la là. nga wax olof. damay départ ci situation bi. Mhm. situation bi ñu départ. Euh, Pape ñun ñëpp xam nañ ko réew mi métti na neexee ne du rek. métti na situation bi d'abord euh, tey euh, bu ko xool li nga xam ne ni moo xew récemment avec xale yi nga xam ne ni tey ñu ngi génn réew mi di bàbbeeku di dem ak fu ñu mënta jóge lu tax ñuy dem peut-être que xale yi wax nga ko ci idée bi introduction bi amuñ yaakaar ci liggéey te nekk ci réew mi mu nekk xale yi nekk ci tool yi xale yi nekk ci mbay mi xale yi nekk ci pêche bi xale yi nekk ci fu ne ak xale yi nga xam ne jàng na tey amoon nañ ñun opportunité ñoom it ñu war a am bu ñëpp amut opportunité ñi ci ëpp ci ñoom am taux de chômage bi nga xam ne bii tey am na Sénégal 2012 ñu ngi woon ci 12 pour cent tey ñu ngi ci 23 pour cent donc en 10 ans malgré investissement malgré effort yi ci xëy malgré investissement yi def yëpp loolu mooy réalité. du man maa ko wax c'est les agences officielles état moo ko wax donc ñun li ñu jàpp mooy li ko waral mooy économie bi nga xam ne bii moom la moom la ñu créé munta absorber liggéey yi nga xam ne moom la soxla parce que bu fekkente ne nee nañ dans le marché de l'emploi maanaam ci marché bi maanaam ñi wut xëy at mu ne toll nañ ci trois cent mille ñetti téeméeri junni mhm. te suñu économie bi munta jël lu mooy ñaar fukki junni ak juróom maanaam at mu ne am na ñaari téeméeri junni ak juróom ñaar fukki ak juróom nit yoo xam ne yi amuñ xëy donc boo ko tegee ñaari at ñetti at ñeenti at juróomi at mën na expliquer tey effectivement li tax ñu yegsi donc tey bu fekkente ne da nga ne am nga yéene boo xam ne bi da ngay régler lii da ngay wut loo xam ne lii dana indi ay xëy ay xëy yu durable. comme lan nga investissement. comme lan comme lan waaw tey jii nii. man li ma gëm ne moo war a indi régler plusieurs problèmes en même temps y compris que problème mu xëy benn déjà c'est le secteur primaire. secteur primaire ndax tey fa la. xale mooy mbay mooy mbay mi. càmm mbay càmm ak napp bi ndax tey nee Euh, téeméeri Sénégal yoo jël juróom benn fukki ak juróom ñu ngi se ci ngi secteur boobu. pourtant yaa ngi woon ak mbay mi de. ah macha allah man man fi ma toll nii xam nga. mbay mi nekkoon na sa loxo. <laughs> mbay mi nekk na sama loxo candidat nga bàyyi ko fa. li ma la mën a wax mooy mbay mi nekk na loxo la ma fa def moom résultat yi bu bu bés bu sat yi génnee da nga xam ne Sénégal musu am yi résultat.